même s'il parvenait à éliminer physiquement ay leaders yu porté combat bi euh, affaire yi moom tàmbali na bu pare la révolution day dem du taxawat du munul taxaw man dama lay dama lay expliquer dara c'est-à-dire euh, africaine c'est une conscience qui est là et qui est universelle et, mm -hmm. et qui, qui est acceptée par tous les jeunes africains aujourd'hui am na loo xam ne on peut plus le digérer xam nga ñun on vit dans les états où il y avait un processus qui là pour de décolonisation bi enclenché woon mhm. on s'est rendu compte après évaluation que processus bi eggul parce qu'il y a eu des choses qui encore restent parce que tu n'aurais jamais imaginé que les États-Unis ñu am par exemple une base militaire en France euh, et dans tous les points stratégiques de la France mu am fa base loolu moo xew par exemple ñun li ñuy nekk di dund au Sénégal au Mali au Burkina en Côte d'Ivoire mhm. ñu am ay bases françaises encore ici dans un pays qui se dit indépendant am nañu une monnaie coloniale qui encore la loolu yëpp jeunesse baa ngi koy dund. Mhm. une ba la France ne man maay man maay tànn koo xam ne moom mooy nekk au pouvoir te tey man xam naa ni tey je suis convaincu que li nekk di xew Sénégal il y toujours une mais derrière et c'est ça qui est regrettable africain mënuñu am maturité boo xam xamante da leen permettre que ñoom ñu xam ni on ne peut pas continuer à servir les intérêts de notre pays parce que mënuñu continuer di servir les intérêts de la France. mais cordon boobu est-ce que par nañu ko dagg ko. mais c'est c'est pourquoi je que ça là c'est dafa di loo xamante ni kenn mu mënatu ko arrêter. Mm-hmm. qu'on tue qu'on emprisonne qu'on fasse tout c'est une révolution qui va aller jusqu'au bout ça ne crois que le mieux de voir comment. Comment trouver des solutions à l'intérieur de ça? Mais ça ne peut pas s'arrêter. Les gens ne peuvent plus supporter cette monnaie coloniale. On peut mm. plus supporter les bases françaises. On peut plus supporter la même mise sur nos économies avec la France. loolu dafa di loo xamante c'est un sentiment partagé par toute la jeunesse et on est à une maturité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir juger. Mm-hmm. Les gens ont compris, on a été à la même école, dans les mêmes écoles ce qu'ils comprennent ce qu'ils comprennent c'est que nous nous comprenons aussi de l'État mais aussi bu ñu demee bay def référence ay euh, militaires yoo xam ne dañoo ils ont fait des coups d'État dans des pays de la sous-région est-ce que tamit loolu c'est pas un problème Mali, c'est ça qu'il faut Guinée, éviter Burkina savez, euh, parce que Sénégal li ñu nekk nii alhamdulilah jusque là xëy na nos politiques am na ñoo xam ne nga baal ma ci ils sont pourris mais est-ce que gënul instabilité boo xam ne armée mooy yor pouvoir bi non non non euh, il faut éviter de plonger le pays dans le chaos. Mm-hmm. parce que su continuer nii su continuer nii lan moo wax ni suñu armée du jël pouvoir c'est ça le danger. mais quand Sonko appelle l'armée à prendre ses responsabilités aussi c'est grave. à prendre quoi. ses responsabilités. il a demandé mais chacun de nous lui-même il a pris ses responsabilités moi je dois prendre mes responsabilités. mais toi tu dois prendre tes responsabilités ça c'est normal ça c'est un discours responsable au contraire. Mm-hmm. chacun de du président de la République. Mm -hmm. L'armée est là au service de la nation. Au service de la République, au service du peuple. Mais bu ñu demee ba aujourd'hui que ce soit la justice et, toutes les autres institutions de l'État mhm. ñu mm -hmm. nekk au service d'un homme ou d'un clan ça pose problème, ça pose problème. et c'est cela aujourd'hui loolu ñu nekk au ah, Sénégal et moi je pense que, vous êtes comment analysez-vous euh, le niveau du débat politique en ce moment le discours de part et d'autre je continue à croire que suñu demee ba egg ci niveau de violence bi ñu nekk tey jii c'est parce que Macky Sall ne veut pas tempérer. c'est le seul responsable. moi pour moi c'est le seul responsable de ce qui se passe parce que tey jii bu buggoon apaiser le climat social et politique mën na ko il suffit d'arrêter cette ces arrestations toutes azimuts toute cette machine judiciaire lâchée contre les Sénégalais. Et c'est fini. Moi, je crois qu'il en a les pouvoirs, il a les capacités et il peut le faire. ko ah, deful c'est parce oui. que il ne veut pas. Ah, maintenant par rapport au discours au discours parce que boo seetloo euh, de part et d'autre ñi naan gatsa gatsa ñi naan ku dee sa li juraat ñi naan boo dee jël sa jabar maanaam ñoo xam ne ils sont censés diriger ce pays ëllëg est-ce que un discours pareil les honore. Euh, vous savez euh, quand on est dans une situation de non état amatul lii rek le jur. moo tax la police doit rester une police républicaine armée doit rester républicaine et que ceux qui dirigent le pays ils doivent être à la hauteur. Mhm. des tâches qui leur sont confiées. vous savez quand chacun joue son rôle normalement yii yëpp du am parce que mënoo créer désordre fi désordre amul. Mhm. mais mais mais bu ñu demee ba chacun ma quand la police vient. xool un garde taxaw nga tiré si tànkam ñëpp di filmer te du mujj fen nga xool nit ki di manifester xool nga viser ko ak balle réelle. gis nañu ay des caméras amateurs euh, oto di jaar ay pick-up di jaar si kaw nit ñi. Mhm. on a vu des des des, des gendarmes tués benn am benn mais fii bi ñu amee woon de bi ñu reyee woon fii une fille à Tamba vous vous souvenez. en quelques jours jàpp nañ ko ko def non. vous pensez que tey jii mun nañu am et surtout que euh, un homme euh, qui appartient aux forces de l'ordre bu ñu bëggoon enquête in enquête libre duñ ko xam rey nañ François Mancabou bu au delà. Euh, justement daa ci ñëw François Mancabou bañ ko rey. dafa la dafa am ay enquête libre yu ñuy defoon da nga wax. qu'est-ce qui alimente ce sentiment injustice bi impunité bi. wala li ngeen bokk fi ngeen dëkk lan la ci. no non non non non au contraire xam nga loo xamante ni lii lañ doon wax en tout cas démb xëy na François Mancabou la ñuy rey. Euh, ça peut tomber sur n'importe qui ku ku ku mel ni man génn di wax ñu ne dafa mer parce que mbokkoom la mankaañ la ko moom d'accord mais tey ji bi ñu reyee bi ñu bi ñu reyee ñoom euh, les deux gendarmes on va dire encore quoi xëy na mbokk keneen la tamit et ainsi de suite et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal il un problème réel mm-hmm. on peut continuer à le faire et que kenn du ci enquêter su amoon ñu ne quatorze morts d'accord on va dire que euh, Sonko moo woote woon dara mais pourquoi on ne fait pas une enquête libre pour élucider ces morts-là je crois que dinañu xam ni on parle mais pourquoi quand il y a comme ça y a Ils prend pas temps fii nii ñëpp xam nañu kat moo nekk di rey ñëpp xam nañu kat moo nekk di rey kan moo nekk di rey <laughs> mais mais attendez les au Sénégalais d'en juger et ils le jugeront en tout cas au mois de février